Touba yeesal gi waaye na waa kër Serigne Touba ah, waaye ana waa kër Serigne Touba waaye ma ne ana waa Daaru Salaam kër Serigne Touba yeesal gi la yeesulu mi yàgg nañ ko dégg yaa ko leeral Serigne Saliou Senegal, Muslim you. joxel sëriñ Saaliw ne na canta mooy bernde tabu ñam yu neex joxel sëriñ Saaliw waxal yi la yàlla defal jël ca ñepp seere ca ca gaw sëriñ Saaliw candu candaakoon yëpp bay boole gi mu nga boole ki yow sëriñ Saaliw falale pa doore defar yu ndaw yu doon muri toy sëriñ Saaliw sëriñ Béthio yaay sang sëriñ tidak. belajar. nu baax soxna Aida jëfati Serigne Béthio dëgg-dëgg jëm bi Serigne Béthio bi yàlla fa yàgg lool te wér. soxna Aida Saliou sunu yaakaar yi tey ëllëg yàlla fi yàgg lool te wér. waaw ñu ngi santaat bu baax a baax sang bi ci tawféex yi ñu amati siyaare si la ngir ni ko sëriñ bi waxe kula la jël ci ndimbalul serigne touba ak tawfiq ak yermane yalla te ñett yoy de kuko am raw barké serigne Béthio motax ñi ngi sant ci tawfiq gi nga nu mayet ci sa jëm ji tay ñaan saa su ne muy bari lool waye bu nuy dik saa ne tanki tanami di ci feñ sante nañ la lool lool lool moom nak dañuy ñëkke ci lu ñu xam ak lu ñu xamul tey ñaan nga jéggal ñu ani tawassul bi mi ngi toll ci ñaata 1 million 100 000 waaw waaw tawassul bi ni nga ko waxee ak ni nga ko bëggee waa di ñaan di sàkku sang bi dimbali ñu ci jekku ndigal mën ndigal jekku cofeel mën cofeel sa wax joojee silence science action sang bi dimbalé ñuko taw mom dé dañuy tuup ndax kat yene ji ñu am ci manam say ñu jakarlo ak yow mom lay sas ñu ñu faxas ko mu mat mom cey dimbalé ñu ciun aw dimbali ñu ñi ngi wat sa dimbal ndax yene jang ci mbolo mi bo ak legi ñi ngi ci di organiser wu waaw ku ne di di di di jema mandargal manam yéene ji mu am ci li nga bëgg mu def ko ca ba nga ko bëggee waaw ci maanaam temps bi nga ko bëggee kon dimbali ñu cuun waaw sant nañu lool moom day mel ni kéemaan la waaw moom daal waaw waaw ca jërëjëf cuun waaw moom euh, année universelle addiya ji dajale woon nañu addiya mi ngi toll ci un million Anda ànd ak tuub ah waaw te fas yéene taxaw tem ci 17 avril bi moom ndeyu bis yi ndax tey kat yéene ji moo doon moom takk sas wi chaque échéance opportunité la ngir takk sas wi jox la ko waaye yéene ji mooy kat bërit matal sas yéene ji mooy kat saa yoo ñu joxee bés ñu indi ko ci bés boobu moo tax ñu ngi tuub lépp sang bi ñu ngi tuub lépp xam naa ne nag moom du guddal kàddu gi ah waaw moom universel jum di tuub lépp sang bi jërëjëf Thioune la ñaan nga yàgg fi loolu te wér te njëriñoo sa yàgg fi. Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio ñaan si barkeb Serigne Béthio suñu sang bi sax na Aida Saliou yàgg fi loolu te wér jërëjëf Thioune di santaat bu baax moom biñ amaatee taw féex taxaw fii ngir dëkk digtal leen fi nga xam ne fa lañ ci toll muy Daaru Salaam kër Serigne Touba yeesal gi.

di première échéance waajal 17 avril tàbbi nañu cinquante cinq millions cinq cent cinquante trois mille quatre cent quatre vingt dix jërëjëf di Serigne Mbaye Diop. waaye gars yi dañ leen may loxo waay waaye loxo waay. ñoo ngi dem te ñëw bu ñu dellu see mu gën fee neex. ñoo ngi dem te ñëw bu ñu dellu see mu gën fee neex. ñoo ngi dem te ñëw bu ñu dellu see mu gën fee neex.